Thank you. génnug àdduna bu Astou Sokhna moo ngi woy di susciter ay réaction ci réseaux sociaux yi moom ndaw si nag nga xam ni dafa tolloon ci diggante dafa daal di ñàkk bakkenam par négligence médicale fële ca maternité bu hôpital Amadou Sahir Mbaye bu Louga ay mbokkam nag ñoo ngi mer bu futu dal di nañ porter plainte personnel bu hôpital boobe jébbal ko kii di procureur bu tribinal bu Louga tey jii bu fukki waxtu ak ñaar jotee mun ma du man maa koy man ko ah ko defal ah, man ko yéen kon yéen man ko waaye yéen kon lu seen liggéey waaw man ko waaye waaw waaw nii man ko waaye yéen mooy seen liggéey du lii mooy seen liggéey yéen ku leen soxla bu leen wax lee defal leen ngeen war koo defal xanaa ah, loolu mooy seen liggéey mu ne man de du man maa koy da ngeen di foofu liggéeyu liggéey ñu ko tone man ko waaye kon da ngeen di ko keneen ka daal ko tone mun ko bu ko tontu man ko du ma tontu mu daal di dugg seen salle de garde

léegi madame Sène madame Sène daal di jëm bu mu jigéen baa koy wax loolu dak expliqué mu ko arsu li ma la wax naa la ko ba pare bu ma ci dellu gannaaw li ma la wax wax naa la ko ba pare suba lañ la programme expliqué naa foofu laay yem daaj la ëpp suba lañu ëpp est ce que man suba dina ma fekk léegi wax carrément